Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak di leen balat ak ci seen émission bo xamanteni mom moy Zikra fi Ramadan fi ci an TV mu melni ni li ñu bëgg jangat tay nak dafa delu ci li nga xamanteni mom moy mooy njariñal koor ñukay wax fawaidu saw mu melni ni njariñal koor nak bari na ay la yu bari bari waye ñaar rek lañ ciy jël mooy li nga xamante ni moo dellu ci wàllu roox ak li nga xamante ni moo dellu ci wàllu société bi xam nga li nga xamante ni bu ñu tuddee baatu roox mu dellu ci wàllu spiritualité parce que dafa nekk loo xamante ni lu am solo ci dundu doomu aadama parce que nit ñaar moo ko séq mooy li nga xamante ni mooy âme bi ak li nga xamante ni moom mooy yaram bi ta mooy karkaas bi moo lay permettre sax ruux boobu noonu nit bu faatoo ruux bi mooy siège ji dem kaw asamaan li nga xamante ni moom mooy des fii ci suuf moom mooy jëmm ji kese moo tax ruux boobu noonu moo am solo moo tax koor faw ñu dund ko ci ñaari anam yooyu am na ci loo xamante ni jaani bu ruux yi la mu dellu ci wàllu spiritualité dinañ ci gën a ñëw am na ci loo xam ne dafa dellu ci wàllu social bu delloo ci li nga xamante ni moo dellu ci wàllu social ci wàllu spiritualité moy koor dafa am lum lay janggal, lum lay tamal ci yow moy luñuy tuddé muñ muñ dafa am solo Serigne Cheikh ma sa dégg nak mu ni nit nak, mom nit ñi ci xol lañuy muñé mé xel xol kenn du ci muñé wayé xel lañuy muñé kon muñ mu nekk lo xamanteni lu am solo la bari na ku koy wax naan muñel muñel muñel fekk dafa xamul nu muy def rek motax mu naan muñel kon di ci ñëk ci walu spiritualité walu roh moy daf lay jangal li nga xamanteni mooy ah. nga am muñ ñaareel bi mooy dabtu nafs mooy li nga xamante ni mooy retenue day tax nga am lu ñuy tuddee retenue parce que nit ki bu amul retenue rek mooy permettre mu def n'importe quoi lu ko neex moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko ci benn xadis te mooy laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab nee na jàmbaar pire moom yonente bi sallallahu wa sallam nekkul ci ku la tooñ nga dóor ko Nenek jambar pir moy ki nga xamante ni wóor na la dañ lo togn aduna yeb xam dañ la togn rew mi yeb dañ la togn ci lay mbugal sax daf la togn waye nga am retenu si nga xamante ni sa bop kon retenu nek na ci li nga xamante ni koor la fay delu ci li nga xamante ni moom mooy wàllu spiritualité la mom nga xamante ni mom timit, li nga xamante ni bokk na ci njariñal koor fay tax nga am lu ñuy malakata taqwa mooy lañ la jàngaloon sa leçon bu njëkk rek mooy baatu ak taqwa moo tax koor gi benn baat la boo ko doon conclure bi ko tënk ci benn baat liñ ci soxla mooy ak taqwa mooy tax nga man a at mi kon koo xamante ni bu koor gi jeexee jox lañ la sa salaire wala jox lañ la sa bulletin wala ñu jox la sa kashfu darajaat wala ñu jox la ñu la sa sa sa convocation te at taqwa mentionné wu ci rek jàppal ni yow da ngaa li nga xamante ni mooy sa koor jàpp nga ni amoo tuyaaba waaye doon nga xiifal ak li nga xamante ni moom doon nga doon nga naana kon loolu mooy li nga xamante ni moom moo dellu ci wàllu wàllu wàllu roox bi muy muñ bi te buñ ko tuddee xel ñëw mooy wàllu retenue bi mooy téye sa bopp am patience mën a muñ surtout maa ngi lancé appel société sénégalaise jamono bii ni ñu gën a am li nga xamante ni mooy retenue la suñu bopp ñu gën a teel di gën a teey di gën a dal di gën a def ndànk parce que loolu dafa bokk ci nga xamante ni ci njariñal koor la bokk beneen bi nga xamante ni bokk na ci njariñal koor bi dellu ci wàllu société bi mooy dafay indi li nga xamante moom mooy moom mooy équilibre ci wàllu penc mi équilibre am li nga indi li nga xamante ni moom mooy ci njariñal koor li ñuy tuddee euh, justice sociale baneen bi li nga xamante da koy indi ci wàllu société ci koor ci njariñal koor bokk na ci li ñuy tuddee alaadul te moom mooy maan waaye nag mbokk yi ñu xam ni mbaalum baax na waaye nag ci ñi ngi ko siitu njiit séentoo ci ñi nga xamante ni mooy suñu njiit yi mooy ñi nga xamante ni mooy les dirigeants yaa xam képp ku mën a jiite rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al adlu hasan walakin fil umaraawu ahsan ta mooy maandu de baax na waaye ñiñ ko gën a séentu mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite kon bu ko defee koor bokk na ci njariñam li nga xamante ni moom mooy al adlu muy maandu daf koy indi ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy société bi bokk na ci ba tey li nga xamante ni moom mooy euh, euh, njariñal koor daf lay tàmmaloo li nga xamante ni moom mooy xiif parce que bul fàtte ni bokk na ci philosophie koor mooy nga lekk fukki weer ak benn am koo xamante ni mi ngi ci penc mi xëy na lekkul xëy na naanul yàlla ne la nag mosal comme li mu doon mos loolu moo tax dina la tàmmaloo li nga xamante ni moom muy xiif ba nga xamante ni yow boo amatee dina am koo xamante ni di nga bàyyi eh, sa mbokk mi nga xam ne moo nekk ci penc mi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko nee na képp ku fanaan ci benn quartier quartier ba am ko fa fande nañu japp ni ñom ñoy responsable kon responsabilité yi nañ ko gëna a yaatal waye timit acteur yi timit nañu gëna a xel ci walu bobu surtout njariñal koor li delu ci walu spiritualité li nga xamanteni mo lay spiritualité bobu mo xon sank ci ñett la lay delu ni mu ci auto bi nga xamanteni dañ koy defal lavage defal ko vidange ak graissage loolu moy li nga xamanteni ni njariñal koor mom la lay defalal mu delu ci walu esprit bi delu ci li nga xamanteni moy walu société bi mu dellu ci partage bon dellu ci li nga xamanteni ni mooy bokk dellu ci union entente solidarité progrès bu ko defé loolu moy li nga xamanteni mom lañ doon fatali ci seen émission ci sa zikra fi ramadan ci li nga xamanteni mom moy ndariñal njariñal koor xëy na ëpp na loolu sax waye loolu moy li nga xamanteni mom lañ ci retenir rek aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum jamian wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh